biti réew yi ba tey ak Cheikh Tidiane. aywa xibaari biti réew yi Cheikh Tidiane dañ koy doore ak euh, France. France euh, muy manifestation yoo fa am coow la ak euh, gune gu nga xamee ni dañ ko fa faatoon Naël moom moo andi loolu yëpp policier bi nga xamee ni nag moom moo defoon lu mel moom cagnotte bi nga xamee ni la ñu ko ubbil yegg na ci million ci. euro euh, te waa extrême droite française ñoom ñoo jëloon na initiative boobule euh, premier ministre bu France di Elisabeth Borne nag jàpp ni kañet euh, boobu daal contribué wul andi apaisement foofu ca France ndaxte déjà ci beneen coté bi muy famille bu Nahel moom kañotam deux cent deux cent millions euros rek la amagum ci xaalis ba léegi foofu ca France la des wax ci rapatriement Taliban lu toll ci euh, fukki soxna ak ñaar fukk ak juróomi euh, gune yoo xam ne dañ leen téye woon ci ay camp de prisonniers djihadistes euh, fële ca Syrie gune yi nag ñoom dinañu leen jël yóbbu leen ci way docteur ñu amalal leen foofu analyse médico-sociale ñi nga xamee ni ñooy mag ñi nag dañ leen di jox autorité judiciaire compétente yi ñu def li ci war suñu sukkandikoo ci communiqué bu Quai d'Orsay ñu jaxale ko ci Neymar Fati muy footballeur brésilien boobu nga xamee ni nag euh, dañu ko dóor amande bu safa saf ci euh, mbirum infraction yoo xamee ni daf ko def euh, ci mbirum environnement ndaxte jour bi dafa maanaam defar benn lac artificiel ca këram euh, fële ca Rio de Janeiro looloo tax euh, mu nar a fay amende boo xamante ne toll na ci euh, ñetti millions ëpp na ko tuuti sax ci dollar soxna Fati. merci beaucoup Cheikh Tidiane Diawo xibaar yi bi ci yi la woon ma fàttali leen ne bu Oumy Samb noppee daañu dégtal leen élément di gëstu boo xam ne daal dañu ko jagleel